te safara la lay jëme te ñépp ñuy dox ci yoon bu yaatu boobu ba ci seen dee safara lañu jëm te doo delsiwaat safara te foofooy dëkkuwaay ñi ñuy mbugal ba faw te yàlla du nemmeeku mukk bërëb boobu ñépp ñi fay féete dañuy xaajalikook yàlla ba faw ndax nga dox nag ci beneen yoon bu baax bi mooy bu xat bi fokk nga jaar fi bantu yéesu bi nekk mënoo faa jaar di wéy te jaaroo ci yéesu bu fekkee yaa ngi def lu ñaaw yow doo mën a bokk ci ñuy dox ci yoon woowu bala nga mën a bokk ci ñuy dox ci yoon woowu fokk nga baalu say bàkkaar borom bi yéesu ba noppi nga gërëm ko te sant ko ci li mu dee ci bant bi ngir yow xëj na sax bu loolu weesoo sa xarit yépp dinañ la bàyyi waaye doonoo kenn rekk ndax yéesu mu ngeeg yow dina la aar te dina la gide ba yóbbu la ci kër yàlla te foofu dinga fa amee mbég ba faw